Rewmi 24 TV bismillah daleen ak jàmm ci xibaar mercredi 17 janvier 2024 mu mel ne El Malick ya Ndiaye yëkkati na ay ya kàddu ca ya page Facebook am di dànkaafu ñi nga xamee ne rek ñoom ñooy conseil constitutionnel di leen xamal ne rek mënta ñàkk benn yoon ñu daal di rek jox Ousmane Sonko ay droit Ousmane Sonko dafay nekk candidat ndax kat ku ne xam na ne administration bi nga xamante ne rek moom moo bañal Ousmane Sonko ab euh, euh, quittance ngir rek moom mën koo yóbbu ci conseil constitutionnel loolee kon bu ñu sukkandikoo ci El Malick Ndiaye nga xam ne ne lu yoon benn yoon ndax kat dafay mel ne kon administration bi moom moo ëpp doole ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy conseil constitutionnel te kon loolu yanawul maanaam benn yoon kon li ñu war def rek mooy. samedi ba ñuy publier candidat yi nga xamante ne rek ñoo war participer ci présidentielle 2024 Ousmane Sonko dana ca bokk kon moom El Mari Ndiaye daal ma ngay dànkafu conseil constitutionnel di mel ne rek kon bu fekkee ne liñ bëgg def bëgg nañ ko def kon day mel ne kon CDC moom moo ëpp doole conseil constitutionnel loolee kat kenn du ko nangu benn yoon li ñu war a def rek mooy daal di rek jébbal Ousmane Sonko ay droit ngir mu mën a ci présidentielle 2024.